am na benn kuréelu euh, sénégalais boo xam ne également jotoon na séentu. Mm-hmm. ci tuuba ci Dakar ci yeneen gox ci ci ci réew mi. Euh, jàppoo ne foofu bu ñu euh, sukkandikoo ci wàllu calcul astronomique loolu aussi ñu ngi koy ñu ngi koy wax. Mm-hmm. loolu mënul régler mbir mi aussi. déedéet mënu ko régler daf noo mën a dimbale. Mm-hmm. astrologue li ñuy def mënut a régler mbir mi mais mën na noo dimbale. d'accord. mën nañoo dimbale ci séentu weer weer kañ lañ koy séentoog nuñ koy séentoog est-ce que tey. Mhm. Euh, lu lu lu lu visible la wala déet loolu mën nañu cee dimbale. Mhm. parce que dafay noonu dem séentu ji résultat ñu ci amee jël ko mhm. waaw. loolu mën naa am solo macha allah. d' accord d' accord ba léegi ci mu mel ni division yooyu nga xam ne am na am na njeexital également wax nga ko léegi. Mhm. ci ndoxteelu koor gi. Mhm. yow sax nee nga ñaar yëpp baax na. Mhm. Euh, division yooyu aussi. dina am ñoo xam ne dinañu ne bu fekkee ne dafa am ñaari boor yoo xam ne. ñii dañu ne dañuy tàmbali ñii ne duñu tàmbali jiixi jaax day am foofu. est ce que ci bésu jiixi jaax aussi woor fa dafay war. waaw jiixi jaaxa mooy bisub sikki sàkka sikki sàkka mhm. bisub sikki sàkka bokkut ak ñu ne weer yu feeñ na mhm. bisub sikki sàkka mooy kii amul benn xibaar mu daal ne ah man de amul xibaar mais mën naa am weer yu feeñ mhm. kon naa woor su feeñee ma am sens su feeñut muy naa fi la kooku la ñuy tere na ko doo fi woor a yow ah. waaye ki dégg maam góor njaay ne gis nañu weer bi barab sàngam barab sàngam barab sàngam mu doy ko mu woor amul sikki sàkk doyu ko wóorul amul sikki sàkk waaw ki amul benn xibaar nag moom mu ne damay woor tey hmm. su dajee koor gi muy muy xawirun su dee yëngu toog muy naafi la kooku la ñaan d' accord wa sukkuraan. <laughs> jërëjëf jërëjëf oustaz. Hmm. looloo nekkoon lu jëm ci wàllu actualité. Hmm. ñu dugg ci question yi nga xam ne jébbal nañ ma ko. waaw pour ma jottali la ko. incha allah bu njëkk bi euh, mu ngi concerné koor gi. Euh, nee nañu koor boo ci nekkee jëf ju baax boo def dañ koy ful. Mhm. xam naa après di ñu jox lim bi. Mhm. mais kii laajte dafa ne bu fekkee ni nag nit ki nga xam ne dafa woor. Mhm. daf jëf joo xam ne méngoowul ak jëf ju baax. luy àtte bi ak lu ko ciy fekk. jërëjëf euh, gis nga tablette yi tàndaram yi nga ma jox. yàlla nañ ko joxante bu déwénee. amiin boo ci ba joxee benn bu dee ci biir kor gi juróom-ñaari téeméer lañ la ciy dencal. tuyaaba juróom-ñaari téeméer nga joxe tey. 700 700. bu fekkoon du koor gi 9 lañ li ci tegal ak bi nga yor muy 10. kon différence bëri na. kon ci promotion lañ nekk actuellement. Hmm? noonu mu nekk ci promotion nag safaan bi itam noonu la nag ku ci saaga bàkkaaru juróom-ñaari téeméeri saaga ngay am hmm? Hmm? ku ci zikkar am tuyaaba juróom-ñaari téeméeri zikkar noonu noonu lañ noonu lañ koy defee nag. moo tax affaire bi ni mel ci côté bi bu bu négatif bu bu positif bi noonu la mel ci bu négatif bi. jërëjëf ci laaj bu am solo bi jërëjëf jërëjëf ñu dem ci ci beneen mhm. bii moom démb sax euh, bi ñu ñëwee sa kër mhm. ci ndogu chee émission Sénégal 7 boobu mhm. jot nañ ko aborder waaye lii tax ma indiwaat ko tey mooy bi nga nee Euh, maanaam dara amu ci mënul yàq koor dinaa ci ñëw. Mhm. dafa am beneen euh, version bu ñu dégg itam. Mhm. ñu ne mën na yàqu koor. Mhm. muy diggante koor ak vaccin. vaccination yi. est-ce que kii woor bu fekkee vacciné wu na mën na yàq dara ci kooram. waaw xam nga bu ñu jëlee question bi jëlee ko ci fiq yóbbu ko ci affaire scientifique yooyu. wax ne ñàkk bi. lu yàgg-yàgg day dem ca yaram wa mën naa am mu àgg ca mbàq ga mm-hmm. la fay àgg ñaata la lay àgg mm-hmm. ñaata la ci chantage est-ce que ca baax ga lay dem pour wóotu lekk wala wóotu naan loolu la scientifique di gëstu li fiq waxoon rek mooy pikiir yàqul koor ñàqu yàqul koor tuufu yàqul koor ñu dem d'accord kon leer na incha allah <laughs> ñu dem euh, ci beneen euh, bi mooy mujj sax mooy euh, question bu mujj bi. Mhm. je pense que si sa waxtaan léegi jot nga ko aborder. Mhm. wàllu ay ay lobeek yooyu. waaw <laughs> waaye fii kiy joxe question bi dafa ne. ndax ci biir weeru koor est-ce que may nañ jullit bi ci biir weeru koor mu sekk ak jabaram. laaj nga laaj ba am solo te itam laaj yi nga indi nii te ni jox la ko ci jataay bi maa ngi ciy bëgg loolu macha allah. Mhm. Euh, suñu borom daa wax ci alquran ci suuratul baqara uxilla lakum laylata siyaami arrafathu ila nisaikum mu ne guddig weeru koor maanaam buñ naanee ndox ci timis ba baa ñu julli fajar wala ba baa fajar di jot diggante boobu bépp may nañ ci nit mu joxe ak ay waaye bu yàlla tuddee lalatu siyaami li mu tekki mooy kon bëccëg bi nag mayu fa dara bëccëg bi mayewu fa dara su fekkoon nag monsieur dafa woor madame woor ñu bokk lal bi tëdd nii rek tëdd rek comme sa hmm. amul problème waaye nag bëgg faa def dara wala séq fa dara wala nàngam ñu leen déedéet leela te siyaami lañ leen ko may hmm. waaye may leen ko ci bëccëg guddi koor mooy guddik weeru koor guddik weeru koor waaw séent na euh, euh, julli nañ timis c'est-à-dire bëgg wax ne jant bi sona hmm. dog nañu dog nañu tëdd jot na bu leen neexee joxe ay suñu borom sax daf cee yëmul def ne ku aye na bëgg fal aana baashiruhunna ku aye na bëgg teg na ca nag ne wabtaxu maa kataba Allaahu lakum bu leen planifier nag. xaju si mu ne mu hmm. ngeen di joxe ay na ngeen wut ay bébé ca ay ga. maanaam. maanaam bu kenn am soxna di joteeg moom ci biir weeru koor wi tey jëf loo xam ne day tax du am doom. Hmm. wabtaxu maa kataba Allaahu lakum. Hmm. noonu la ko ci jeexale d'accord waaw ci la ñu teg suñu baaram tey xëy na bu ñu yàlla dellusiwaatee ñu continuer ko ci kàttanam. incha allah mm-hmm. d'accord jërëjëf oustaz si si euh, tontu yi. Mm-hmm. ñu ngi la si jaajëfal bu baax ñu ñaan la rek nga dénk ñu balaa ñuy tàggatoo. waaw maa ngi lay dénk di dénk suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ndax nee na mm-hmm. ñoom tam leen ci boole. ñoom Ibrahima Faye mu la ci Allemagne. alxuraan daa wax ne. wala yi lil xaayinina loolu lañ dénkaan bi tey. mooy bul faral workat. amal fulla la toll ni bul faral workat bul ko défendre ah bul farak moom bul ko suqali bul ko téyal bul ko téyal ci mukaay ndax yàlla daa bañ warkat moo tax mu ne wala takun lil xaa'iniina xasiima bul jàppale benn warkat niñ koy xàmmee warkat warkat niñ koy xàmmee xaw na xaw na yomb hmm. ko xam ne kii bu waxtaanee boole ci lu ci bokkut kum xolool gañe la ndax ndax day sos uh-huh. lu ngeen bokk dugg mu rocc ko bàyyi la ca lu ngeen bokk wax nga dégg ko ca pénc ma loo ko dénk mu lay ba lekk ko kooku lañ ci dee warkat suñu borom nee na bul ànd ak moom mukk bul ko soqali mbukk waaw bul ko uh-huh. roqandi bàyyi ko mu dem rek ba suñu borom jàpp ko jërëjëf jërëjëf oustaz kon nag nu bàyyi la nga tàggoog way way seetaan yi waaw tàggoog yow tàggoog également ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di joxante dig daje incha allah aljuma joxe dig daje aljuma incha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu kon mbokk yi bu leen toxal seen seetaan ci kanam tuuti ñu wel jataay bi رجلا كريم الطبع غير جبان واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن نزل القرآن لتعلم